Senghane Senghor ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. waaw maa ngi fay Elisabeth. Mhm. may fàttali auditeurs yi ne ñu ngi koy dalal moom mi bokk ci RADDHO yor euh, ay affaires juridiques et protection euh, ci boobule organisation ñu dooree waxtaan wi ak Habré euh, mi fi bàyyeekoo bu yàggul tey ji gannaaw bañ ko jaalee ñu wax ci victimes Euh, tey lan mooy seen ëllëg ndax ñoom euh, gannaaw nag euh, ba Habré Fathio seen procédure ngir ñu jot seeni indemnisation comme niñ ko waxee dina wéy ci li nga foog waaw d'abord ñu commencer par jaale seen Habré soxnaam waa këram ay mbokkam am di jàmmam yi parce que amoon na ay am di jàmm sénégalais yu bari mhm. parce que dañ ko adopté woon ba considéré ko ku bokk ci ñoom donc ñoom ñëpp xam naa ne am na lu ñu lu leen naqari ci mbir mi mhm. am nañ ci métit ñu ngi leen di jaale mhm. euh, maintenant pour ñëw ci question bi nga laaj mooy euh, victime yi alors il faut ñu fàttali ne Euh, Hissène Habré bi mu ñëwee fii Sénégal. 1990. Mhm. dafee toog ay at yoo xam vraiment amu fi benn problème mais euh, début 2000 am ñoo xam ne dañ dëkk Tchad. Mhm. topp si ko fii ne ko ah yow kat bi nga yoree nguur ga fa am métit yoo xam ne yii yaa ñu ko teg yii yaa fexe ba ñu teg ko parce que ci sa système la amee et que bëgg ñu dem ci yoon ñu àtte ko. Mhm. yëf yi avancé avancer ba jur ñu ñu créé juridiction biñ fi créé mu acté ko deux mille quinze de deux mille dix sept mhm. procès bi jeex mhm. alors juge bi ko acté ci appel deux mille dix sept dafa dogal mu ne mhm. mu ne condamné na ko mu fay juróom ñett fukki milliards ak ñaar yu teg juróom fukki millions ak juróom ñett fukk ci franc CFA mu dolli ne ñoom xam nañ ne ci seen abré amul lu mu fayee loolu donc ñu ngi laaj fonds pour les victimes bi mu xool lu muy def ba dajale xaalis bu mu mën a fayee loolu mhm. waxaat ne am amam yi nga xam ne confisqué nañ ko mooy teg nañ ci loxo mhm. nañ ko versé ci fonds bi te ñu continuer di xool situation financière lépp lum gisaat luñ moom ñu jël ko dugal ko ci fonds bi loolu mooy li juge ba dogaloon mhm. maintenant ma fàttali ne moom texte bi ñu defaroon nga xam moo tax ñu atte ko ñu koy wax statut chambre africaine mooy par exemple moo doon code pénal par exemple bi permettre ñu juger Hissène Habré mhm. article vingt huit ba dafa wax mu ne créer naa fonds boo xam ne moom mooy toppatoo indemnisation ndampaayu victime yi fonds boobu créé nañ ko 2016 Union africaine moo joxe ndogal nañ ko créé. Mhm. dugal ca tuuti xaalis cinq millions de dollars. Mhm. ba pare nag ne état Tchad da ngay organiser conférence bu mag boo xam ne da nga ciy woote état africain yi état européen yi nga xam seeni xarit lañ institution internationale yi ONG yi. ak particulier sax yi nga xam ne am nañ dara te nangu ko cee def pour que ñoom ñëpp ku nekk am loo làmb sa poos def ko ñu alimenter fond bi pour mën a dàmp victime yi conférence booba ba tey ji amut fond bi nag créer nañ ko dañ doon xëj ne ñi ne nañ ko def Sénégal ñeneen nañ ko samp Tchad mhm. finalement Tchad lañ décidé samp ko waaye conférence boobu amagul sama gis-gis nag mooy Tchad tal na leneen fi ne lu dut conférence boobu mhm. ci kaw loolu euh, gannaaw nee nga ay fon appel de fonds la def ngir victimes yi ñu mën leen a fay seen xaalis tey jii nga xam ne euh, moom mi seen Habré wuy ji na boroomam euh, fonds yooyu lee tegoogul te it chambre africaine dissoudre nañ ko tey jii victimes yi bu ñu bëggoon a def recours ci kan lañ jëm waaw c'est-à-dire que chambre africaine yi noonu lañ leen tëggee woon hmm. dañ leen tëggoon ci ne bu ñu attee ci procès boobu ba mu jeex rek dañ leen di dissoudre mooy dañ leen di fay duñ amati. d'accord waaye nag li li texte bi wax après. Mhm. mooy lépp lu feeñ lu ñu war a attee ci yoon après lu concerne procès boobu ci juridiction sénégalaise yi lañ ko war a régler mooy dañoo war a dem ci juge sénégalais yi ñoom ñu régler question yi. Mhm. Mhm. noonu la war a demee mais. li ma la wax nag bu njëkk ci fonds yeeg saisi confisqué ak nangam. Mm. loolu mooy li juge bi dogal. waaye nag il faut ma dolli ci wax la ne. Mm-hmm. juge juge bi bu dogalee lool moom pare na ci. dafa am yeneen procédure yu ñuy ubbi yooy xam mooy tax ñu yegg ca lam dogal. Sénégal nag bari na ñu fi yor décision justice boo xam juge dogal na ba pare. Mm-hmm. waaye pour ñu yegg ca la juge bi dogal jafe leen bari fi de. Mm-hmm. un peu dama laa bëgg woon rek un peu que am na yeneen jafe-jafe yoo xam ne il faut ko ñu surmonter ko pour mën a yegg foofu. d'accord moo tax ñun suñ gis-gis. Mm-hmm. mooy pour ñu gën a garantir droit yi victimes yi xëy na nañ topp Hissène Habré. Mm-hmm. waaye nañ tapé ci Union africaine mi organisé woon procès bi. ñu xool ñoom nan la ñuy def pour mën a dajale luñ fayee victimes yi parce que victimes yi nag. ñu ngi faatu bi procès bi jeexee léegi mhm. sept mille trois cent quatre vingt seize victimes moom la juge bi reconnaître ci mhm. procès bi mhm. am nañ information ne ñi fi ñi ci doon yëngu yëpp pour procès bi am ak procès bi dox daanaka ñeenti téeméer faatu nañ non ñaar téeméer ak lu teg faatu nañ ci booboog léegi kon lu ñuy def dafa war a gaaw Euh, tey jii ndax famille bi euh, ndax famille bi euh, dafa concerné ci mbir mi wala rek fond bi dédouané na famille bi déedéet dédouanement amu ci hmm. mais il faut ñu fàttali aussi ne hmm. Hissène Habré mosul reconnaître cour bi mosul d'accord mosul leen reconnaître wax na leen dañ ko doon obligé mu fay ñëw ñu koy at da xëy dogal ne ko bii dogal lañ teg sa kaw. Mm. kon famille bi amu ci lu muy nangu ak lu muy bañ. Mm-hmm. léegi nag procédure yi jaar justice ñoom ñooy xool après lan la ñuy dogal parce que loolu aussi sax mën na jur yeneen procédé. Mm-hmm. waaw mën na jur nañ demaat ci juge bi nañ demaat ci juge bi nañ demaat ci juge bi. d'accord tey ñu nañu ba fii ñu tollu information yi wax ni seen Habré Covid moo ko faat muy exemple bi nga xam ne dinañ ko jël lawal ko ci prison yi di la ko laajte yow ngay défenseur des droits humains tey en cas de catastrophe sanitaire comme mbas mi am euh, ci mim réew nan la administration wala état war a jël euh, ay matuwaay ngir mu garantir euh, lii di wérgu yaram ñi di détenu yi waaw faatu bu demee ni bii bu amee faatu sax prison bu amee hmm. ñoom dañuy ñi yor kaso yi dañuy saisir procureur informer ko ne lii ak lii xew na. Mhm. ndax procureur mooy xool ndax moom dafay demande autopsie pour ñu leeralal ko lu andi faatu bi. Mhm. wala pour moom du ko jar. loolu moom moo koy dogal bu mu yor moom la. Mhm. alors maintenant nag li nekk ci cas bi parce que coow li dégg nañ ko ah. ñi naan ameewu ko kasoog fee la ko amee fële la ko amee. te it dégg naa euh, ci yenn information yi ne famille bi dafa laaj ñu def enquête bu famille bi laajee ñu def enquête nañ laaj nañ enquête ba xam d'abord lan moo ko faat mm-hmm. mais aussi fan la ko jëlee bu fekkee mën nañ ko xam mm-hmm. parce que pour moytu loolu yëpp moo taxoon ñun ñu teeloon a wax état bi ne ko mbas mi ni mu demee nii ak moom at yi mu am. Mm. ak wér gi yaramam fi mu toll parce que ñun amoon nañ information yu leer ne dafa feebar. Mm-hmm. yóbbu ko nga tëjee ko këram. résidence surveillée. Mm-hmm. du génn du dem fenn mais foofa la sécurité am gën a nekk. Mm-hmm. dégg naa nag d'après liñ ministre yi bi wax ak information yi génn. nee nañ ñu ngi nekkoon di ko traité ak ek bu tane woon loon dellu kaso këram la naroon a dem far dogal bi ñëw. Mm-hmm. mais li ñuy constaté mooy am na loo xam il faut ñu rëccu ko ci. d'accord d'accord euh, tey euh, léegi li jëm ci yeneen détenu yi tey euh, ndax am geen ay xibaar nii ci pandémie bi ñu ngi leen di amal ay vaccination ak yeneen yi mel ni aar leen ci mbas mi. <coughs> waa li ma mën a confirmer parce que loolu amoon nañ information yi moom mooy moom ñàkk woon na. après. Ah, waaw hmm. meneen maintenant ñeneen ñi dañoo am droit ci ñàkk yi comme ni ko ñi ci biti amee. Hmm. parce que ñoom benn droit lañ perte mooy droit yi dem di ñëw. Hmm. donc ni ñu war a toppatoo wér-gu-yaram yi ñi ci biti mu lañ war a toppatoo ñoom seen wér-gu-yaram. jusqu'à nag quel niveau quel pourcentage lañ ko jël en charge information yooyu amaguñ. mais danañ ko danañ ko saytu nga xam domaine boobu it fan lañ ci toll ak lan la ci état bi def parce que ñoom it dañ leen war a mais mhm. maintenant nag foog ñu souligner aussi ne pour xeex mbas mi c'est vrai administration pénitentiaire jël na décision yoo xam ne yu mel nii wàññi dugub beeg génn bi kaso mhm. wàññi yekk yeeg yére yeeg yi dugg di génn kaso parce que yooyu yëpp ay vecteur de transmission la war a mën a nekk mhm. jël nañ ñoom décision yooyu pour aar kaso yi mais depuis daaw ñu dañ leen di wax ñu ne nañ utiliser mécanisme yi am yu mel ni ay libération provisoire libération conditionnelle ak yooyu mhm. pour wàññi ñi nekk ci prison bi nga xam ne ñooñu seen dossier war nañ ko mën a continuer sans ñu dem toog prison ndax ñu afal tuuti prison yi wàññi risque yi am aussi pour que ñu contamination am fa mhm. gis nañ ne monsieur Senghor suñu dëkk bi euh, yàgg na di dalal ay exile euh, mu doon président mu doon ay ay personnalité ci wàllum politique ak yeneen euh, tey ndax dafa loolu dafa firnde ne Sénégal en matière de droits humains daf leen a ubbil yaatal leen gën leen a jox kaaraange. waa xam nga foog aussi ñu souligner ne Sénégal dafa am. réputation mooy. Euh, teranga liñ ko xamee ci àdduna bi mooy que réew yu teranga la. Hmm. teranga sénégalaise ku nekk dégg nga ko. Hmm. Sénégal réew mu nit ñi ubbeeku lañ bëgg gan. mën a yaatal nit. et deux troisièmement aussi Sénégal réew mu am sécurité la am dal yenn risques yi amu fi. Hmm. parce que da nga fiy dugg léeg-léeg ci milieu yoo xam ne yenn heure yi ci guddi nga tase fa ak ay gan yu fi dëkkul ñiy jàng si fii ñiy nangam da ngay xam ne réew mi xel dal na fi sécurité am na fi. Mhm. loolu yëpp bokk na nag ci li tax te it réewi démocratie la parce que fii li koy firndeel mooy seen abré yàgg na fi. Mhm. mais dañoo topp procédure yi ci début ba fin pour ñu yegg ci fenn fi moo kii moromam. Mhm. yooyu yëpp ay garantie yoo xam ne la bu nit amee persécution ci réewam dafay mën a xalaat ne affaire ah, de bu ma fa demee mën naa fa am jàmm loolu bokk na ci li sax ñu di fi ñëw ah loolu it nag ñu ñu sant ci yàlla glorifié wu ci te fexe mu bañ a tey ndax mbiru Habré bi euh, amul dara lu mu xajamal ci moom dafa xaw a complexe mooy Hissène li muy bàyyi ci ci taarix mooy ñaari ñaari ñaari facette mm. ñaari gis-gis mm-hmm. ñi àndak moom di ko soutenir gëm ko xamoon ko ba mu yor nguur jege woon ko bari na ci ñoo xam ne dañ ko jàppee africain bu mag boo xam ne mm-hmm. gëm na Afrique gëm na boppam te lu baax la namoon moom la def mm-hmm. ñu di ko ci kañ lu bari bokk na ci kenn ci suñ Euh, mbokki sénégalais yi muy le président Kéba mbay hmm. ay généro français yu rafet lañu wax ci moom am ñoo xam ne dañoo jàpp ne moom bi mu nekkee ci nguur gi violence ak gouvernance bu musclé lafa fa boo xam ne faat na gaañ na créé na victime yu bari hmm. d'ailleurs version boobu moom la ñenn ñi gën a appuyer ba mu ñëw fii ba ñu àtte donc ñaari donc boo laajee ñi ànd ak moom dañ lay wax ne Sénégal waruloon nangu lii parce que nag laajoon nañ ko Diouf xeweewut ci nguuram. Mhm. ñu laaj ko Abdoulaye Wade xeweewut ci nguuram. mag Sall ñëw nangu mu xewee ci nguuram. lu tax man xawma ko moom moo am explication ya mais ñi ànd ak Abré duñ d'accord mukk ci loolu dañuy jàpp ne gàkk gàkk la ñi d'accordul ak Abré dañuy jàpp ne nii la waroon demee. Mhm. ñun nag suñ gis-gis te loolu wax nañ ko mooy. ni mu mujjee moom lañ ci réccu mhm. parce que ñun jàpp nañ ne après ni mu feebaree woon situation bi mu nekkoon mënoon nañ ko yóbbu ci ay mbokkam bu ko yàlla di jël mu jëlee ko foofu moo doon gën a rafet ci deri Sénégal mhm. parce que boo tegee nit ba dooleem jeex mu yegg foo xam ne xam nga ne kii wérut xam nga ne kii même boo ko bàyyi woon gardé doo ko amul fenn fu mu mën a dem de talu ko nga mën koo yóbbu ci ay mbokkam loolu daal mooy mooy mooy métit biñ ci am parce que it Sénégal dëkk yi dëkk yërmande la yaakaar ñu moo taxoon mu ñëw fi loolu it waruñ ko woon perdre de vue muy benn équilibre bu ñu waroon garder ci dossier bi boo xam ne pour ñenn ñi amul te waroon na am. ñu lay jaajëfal bu baax a baax monsieur Senghane Senghor. Euh, merci madame man maa leen sant bu baax.